الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وصلوات الله وتسليماته على أحمد الأكوان سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بالدين والهدى إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi sant yàlla bu baax subhaanahu wa taala di ko ñaan mu wuutuñu ci santal ñu boppam ñaan ko mu wuutul ñu ci jullit ñu ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak taabiina yi ak ñu topp ci njub yépp ba bés penc ñu nekkoon ci silsila bu màgg bu tedd te muy jàngale siiratu nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu tollu woon ci nuuru nabi sallallahu alayhi wa muy leer gi nga xam ne yàlla moom la amaloon ca ësal jaar ak moom ci ay ruux yu tedd dañu agsi ci sayidna nuux mi nga xam ne maamam la gannaaw idris gannaaw shiisa gannaaw sayidna adam waaye ñu dabaatal tuuti lu ñu jëloon yàlla bi mu bindee seyduna aadama moomu amal ko dafa amoon ci moom projet mooy inni jaailun fil ardi xalifa yàlla bind ruux yëpp teg nga xam ne ñoo war a doon maketu àdduna yàlla jug leen ci kanamam foofu lañ tuddee alamul def tëjal lii ci ñoom ne leen alastu bi rabbikum ndax duma seen borom ruux yépp ay milliards milliards lañu tëbandoo ne balaa balaa anta rabbuna yow yaay suñu borom yaay suñu boroom yàlla ne loolu nag dafay yombat laaj leen rekk ngeen tontoondoo ne may seen boroom dafay yomb léegi dinaa leen examiner pour xam dëggu wax ji ngeen wax danaa bind benn alam bu ñuy wax àdduna yóbbu leen fa may leen fa sañ-sañ ngeen mën a wax mën a dox mën a dem ma utal leen fa diir boo leen fay durer bés boo leen dëggoo ci wax ji seen jëf dina ko wane boo leen ci dëgguwul itam dina feeñ yàlla na shahid na wa id qaala rabbuka wa id qaala rabbuka alastu bi rabbikum qaalu bala shahidna ala anfusina ñoom ñépp ñu ne balaa yàlla ñu ngi seede ne yow yaay suñu borom yàlla ne day yób day yomb danaa leen yóbbu bi mu bindee maam aadama nag ci la sol ruux yooyu yëpp léegi ruux yooyu di transformé wu di dugg ci jëmm yi kenn ku nekk la nga war a jur ci doom dana yàlla dana ko dugal ci sa jëmm bu doon continuité kon yàlla benn bit la am mooy indi ñu ci àdduna pour examiner ñu euh, examiner ñu ndax loolu ñu waxoon ne balaa ndax dëgg la ci ñun wala déet examen boobu nag ku ci réussir yaa jëm àjjana ku ci échoué yaa jëm feneen wal iyaas billaah yàlla ci yàlla musul yàlla wàcc adam jaarale ko foofu ñu tudd ba ci seydina chiis ba ci seydina idris àdduna nag yàqu yàqu fi yàqu goo xam ne jéggi na dayo yeggul ci di fi tuur deret di njaaloo di wax lu bon di fen waaye dafa dem ba nit yegg ci yàqute tax mu samp ay xërëm di ko jaamu min la yàlla na nag kon nag duma mën a neutre ci la dépêché waat benn profet bu tedd bu ñuy wax yashkur di sayyidina nuux moom nag nuux tuddul woon nuux yashkur la tudda yashkur fi'lu mudaari la mooy yashkuru rabbahu mu ngi sant boroom fu mu toll moom shaakir la woon ku reconnaissant la ci xéwalu boroomam waaye benn bés dafa gis benn xaj xaj bi am nu mu mel mu wax ci xelam waxul ci làmmiñ bi ne xaj bi daal moo ñaaw yàlla comme yonent la ñoom les moindres détail dañ leen koy suivre dañ leen ciy suivre xaj bi wax ne ko bu ma bindoon sama bopp duma nekk xaj nit lay nekk comme yow te nit ñi gën a tedd laay bokk waaye yàlla mi ma sopp moo ma desal taswiir bi ko neex moo ma façonné kon boo ma xasee man ayibaloo ma yàlla nga ayibal loolu nag ci yonante mu def ko choc parce que rappelé ko lu mu xamul lu mu xam la ko war la ko wax te comme ñoom ay aqtaab yi ak anbiya yi kenn du leen may dara ndax du leen luñ leen boole ci raafiliina yi nit dina dox dëgg a melentaan rey ko mais rey bu dañuy xool ndax ci raafiliina yi la bokk wala ci zaakiriina yi zaakiriina mooy ñi nga xam ne yeewu nañ xam nañu ce sa paas bu ñu xoolee dossier yi ñu ñu ne ah, kii kat ci zaakiriina yi la bokk ñu ne kon li mu def moo ko tey bu dee nag ci xaafiliin yi la bokk nga xam ne yëgul lu xew ñu ne ak ah kuy de jarul jarul sax dóor sa doom comme ci yàlla noox nag ci zaakiriina yi la bokk kan du ko mën bàyyi noonu yàlla wax loo xaj bi mu agir ne ko yaa may wax lii te la ba tey tudd ko ci làmmiñam te ñun ci sharia loo jàng mooy loo waxul sa làmmiñ duñ ko mën a jàppe bàkkaar xel lépp lu fa des rek dañ koy bàyyi ci muhmalaat yi mooy kan du ko bind noox nag loolu def ko choc mu ciy jooy ba ñu faf ko tudde jooykat bi mooy yëkkatkat bi mooy nit kuy jooy di jooy ba jooy yu sori muy sërxët noonu muy sërxëtee <laughs> di def noonu loolu lañ ko tudde loolu mooy an nawxu nawxu mooy firi yëkkat yëkkat moo gën a sori jooy mooy ku jooy ba ay rangoñam jeex muy sërxët yonent yàlla noox noonu la mujje beru di sërxët di sërxët ba ñu yërëm ko tudde ko ak noox jooykan moom nag ku yéeme la parce que yonent yàlla noox dafa yaru dafa baax xol bi dafa sell muy ku yaatu xol nag mais itam te dëgërle ko yàlla yónni ko ci aw xeetam ñooñu nga xam ne juróomi xërëm yooyu lañ doon jaamu ñu lim ko fële ci iraq nga xam ne boobu àdduna feesagul nii yàlla ne walaqad arsalna nuuxan ila qawmihi yàlla yónni ko ci ay cousin am yàlla yonent bu mës a yónni ci ay cousin am la leen yónni ak ay bokkam mu ñëw ci penc mi woo leen bi mu waxee ba daaneel ci ne yàlla moomu yónni ñoom ñëpp dañoo daanu ci suuf naan tex tex tex di ko ree moo tax borom mission yàgg nañ ko rey ñi naan innaka la majnun yow da nga dof xalaatoon nañ ko parce que suñu xërëm yii nga bañ a euh, adoré xamoon nañ ne fii lañuy mujjeek mujjee yow léegi da nga dof ñii di ko ree mu ne leen in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxaruun tey yéen a may ree neex na waaye bëccëg gi ngi ñëw dinaa leen réewi ji comme ni ngeen may réewi mu nekk nag mission bu durée parce que yàlla neen walaqad arsalna nuuxan ila qawmihi euh, walaqad arsalna nuuxan fa labitha fi qawmihi xamsiina euh, alfa sanatin illa xamsiina aaman yàlla nee na yónni naa yont yàlla nuux mu sax ci aw nitam euh, junni at yu manqué juróom fukk mooy neuf def na ko ci mission mais téere yi dañu wax ne noox dundul loolu ñu bari loolu la ñuy joxaatle mission moo tollu ci neuf cent cinquante mais xanaa tëddul ci berceau rek ñu yónni ko yonent bi nee na ma baasa allahu nabiyan illa baada al arbain yàlla mës sa yónni yonent lu dul fekk na mu am kon minimum bi ñu koy yónni am na quarante ans boo ko boo ci tegee mission bi muy neuf cent cinquante dina am neuf ans yàlla nee na bi ma alagee aw nitam waqul naa dama wax yaa nooxu ihbit wàccil gaal gi bi salaamin ci jàmm ju yaatu wa barakaatin ak ay barke euh, minna wa ala mimma maaka dina jóge ci man man yow noox ak ñi nga àndal yépp te nee nañ salaam boobu ak barakaat boobu xam nga lu mu néew néew du yées at yu jëkk yi mu amoon Euh, lu mu néew di wax nañ ne dundaat na juróom fukki ci gannaaw kon mooy mille quarante ans kon nuux yàgg na fi lool te yàggam googu ça veut tout mooy yàgg ci mbaax yàgg ci yiw bés bu jot day jaamu yàlla day zikr day fanaane naafila kon dara darajaam ci yàlla kenn xamul nu mu toll te moom muñ na mille ans lu gàtt gàtt dund na fi lu ëpp mille te bés bu jot ci ay obstacle moom la doon défier moo tax ñu bëgg nit di roy yonte yàlla noox ndax endurance ci moom la fekk baax patience ci moom la fekk baax parce que ñu yónni la ci aw xeet ñu lay rey mu yàgg fa nag mais nit dafa tàmm bu ñu lay woo ci loo gëmul nga nañ ko xaar na tarabbasu bihi raybal manuun nañ bàyyi rek léegi mu dee dañ ko tàmm ah diw day def nangam léegi mu dee ñu noppalu mais nuux deewul mu dem ba ña ko doon wax léegi ñu dee dee ñoom mu continuer di woote mais mag ñooñu noonu dem nañ ci ba ku ci war a dem ba màgget ba xalaat ne léegi nga war a dee da ngay jël sa doom ànd ak moom dox ba ci buntu këru yonte yàlla nuux nekk benn góor bu dëkk dëkk fii laa la bëgg a présenté dafa dof na fexe ba yii muy woote nag yëfu dof yi ci jamonoy mag ñi la kaan defe mag ñi daan ko ree ba ñu dee nañ mu ne moom nag du dee na ko bàyyi xel mais bu leen ko topp mukk euh, kooku day dem tuuti dee doomam jooju dina demaat ba màgget ji indiwaat doomam nekk kii gis nga kii sama maam la nekkaloon sama maam bàyyi ak sama man maa ngi nii màgget naa mu ngi nii mel ni mel na fexe ba yii muy woote nag bul ko gëm mais lii metti na yow weddi rek xam nga metti na waaye weddi ba weddiwaale yeneen génération yi ñëw noox nag désolé ñu foog na loolu la ndekete noox soxnaam si muy fanaanal ak doomam sax bi mu jur muy kanaan ndeke gëmuñu ko kon lañ ko jàppe sam doomam la xam doomam la yaafus doomam la ak kanaan ñett yi ñooy ñooy rakk yi ñoo gëm mais taaw beeg yaay ji gëmuñu di ko sayite fu ñu toll di ko sabote mu gisaat ne foofu risque la muy risque domicile dëkk bi gëmatuñ ko mais génération par génération ñu ngi koy sabote di ko tooñ këram nangulatuñu ko léegi ñi ko topp nag akus néew téere yi nee nañu maximum quatre-vingts personnes lañ nee nañu même quatre-vingts sax dañ mujje di ko chantage nekk mata nasrullah yow yaa ngi naan yàlla dinañu dimbali yow combien de génération gisuñu dara ba quatre-vingt yi ñi ci am pas-pas dëgg set lañu moo tax borom mission bu ne war ngaa muñe sa coono ci yonte yàlla noox xam nga woote neuf cent cinquante ans sept personnes la gëm problème am na ah noox ñi ko gëm ñëpp buñ daje woon xaju xaj nañ ci benn néeg ca neuf siècle la woote et waaye mu muñ rek moo tax endurance ku koy jàng ci yonent yàlla noox nga ko war a jàng tey maam la ci yonent yàlla muhammad mi ñuy waxtaane yonent yàlla noox nag dem ba fa tabaarakallaahu mu ne xëy na nit ñi public bi moo leen arrangé wul mu bàyyi ba guddi mu fëgg a bunte yi ñëw toog ak bi ñu foog ne far farata lay dox ci seen farata ñoom noox ne leen inni rasulullahi ilaykum ñooñ ne ko mais góor gi rus nañ la torop yow lëndëm gi ñu ngi foog ne farata ngay wax si ndekete yow mu ne mais lii mooy sama farata ñu dàq ko dóor ko ba mu xëm bu xëmee dafay daanu nee nañu seddu fajar bi moo koy yee moom yont yàlla noox mu xixi xool delluwaat këram bàyyi na itam ba bëccëg mu ne xëy na ñii guddi gi moo leen déranger mu dem ci bëccëg kër yi discrètement wax ak ñoom ñu xalaat ko bàyyi na bañ toog ci pénc bi mu wax publiquement bàyyi na ba kenn ko ne di dox yow rek mu woo la kon xeetu woote yooyu ñoo am mu ne rabbi inni daawatu qawmi laylan woo naa leen guddi wa nahaaran ak bëccëg sirran wa jëhran ci secrètement ak publiquement mais falam yazidhum duaa yi woo gi ma leen woo dolliw leen illaa firaaran lu dul gën ma sori ak di ma sayite yàlla am na sax lu ma mujje seetlu dem na ba yont yàlla noox bu ñëwee buñ ko séenee rek nit ñi li ñuy njëkk a jël mooy seeni baaraam baaraamu sànnikaay bi lañuy taf ci seeni nopp xam nga nag ki war a wax ak yow ki nga war a waxal boo ko dégmalee mu jël ay baaraamam dugal ci noppam xeet la ci ne dégluuma la mais du tee moom mu wax euh, di def loolu nag ba yàgg ne nag rabbi laa tazar alal ardi minal day dayyaaran yàlla nag désormais neuf siècles doy na sëg nag ci patience ñii gëmuñu dara ñii duñu niti dara baaxuñu léegi xam nga lu may bañ man sax man xamaa ne dinaa dee mais boo fi bàyyee génération bi continuité mbon lay doon ndax ku ku jur sa doom di nga ko wax nekk nii nga war a mel muy continuer fafal rey ñëpp bu ñëpp deewee ba beneen génération bu bees judduwaat ñooñu dinañ la mën a gëm ñu bari ñu ngi ci yedd yont yàlla noox mais maqaamam la ndax moom it dafa maar rabbi daal laa tazar ala al ardi min al kafirin dayara innaka intazarhum ndax justifié na ko boo leen fi bàyyee yudillu ibadaka dañuy réeral say jàmm ndekete kon ci ngay xamee ne àdduna des fi njariñ li mooy lan jub bis boo jubatul waratoo dund boo gisee yenn kirim yi ci lislaam ku ko def ñu ne nañ la rey parce que yow sa dee moo tane ci yow laa wax de tane ci public bi mais boo dundatee rek yàq pénc mi yudillu ibaadak wala yalidu te itam du ñu jurati illaa faajiran lu dul saay-saay kafaaran ñu weddi ta ñoom gëmuñu te nit dafay am influence ci doomam yàlla dogal ñu ne ko ba stujiba daawatak wuyu nañ sa ñaan mais isnail fulka defaral gaal ñunt yàlla noox jaxle parce que mu ngi dëkk ci Irak euh, nga xam ne foofu joor la suuf la ñu ko defaral gaal yàlla mu ne mu ne yàlla luy gaal ndax boobu mosuñu gis gaal ci maam aadama ba ci yont yàlla noox gaal nit mosu ko defar mu ne ko isnail fulka defaral gaal bi naa ci sama supervision wa naa ak sama inspiration seetal loolu xam nga léeg ñu ne la chantier tey diw moo koy superviser yàlla nee na gaal gi man maa koy superviser mais bala ngaa liggéey dara dangay ngay mën a dem jàng métier moom ba maîtriser ko yàlla ne ko bul sonn wax yi naa man maa lay inspiré yàlla inspiré ko yàlla nag ku mu defe naa yaay dàq liggéey menuisier yi mu inspiré ko mu liggéey gaal ñu ngi wax ne gaal gi gaal gu mag la mu def ko ñetti kal euh, yàlla ne ko soo ci paree nga teg léegi nag bi mu bàyyi jamono yi muy liggéey gaal gi euh, nit ñi dañu romb gis góor gi ak âge bi mu amee nga xam ne yonent am na may koo xam ne dund na plus de neuf siècles mën a defar gaal te gaal gi kenn xamul ni mu réyee nu mu toll xaw naa toll ni dëkk bu ndaw waa dëkk bi nag di ko ree nekk mais waa ji doon woote ab yonent de ab sëriñ la woon même pare na ci ne léegi menuisier la charpentier la di ko ree nag ci la leen ne in tasxaru minna tey man ngeen di ree mais fa inna nasxaru minkum ñu nit dinañ leen ree lu mu yàgga-yàgga kama tasxaruna ni ngeen may réewe ni ngeen may réewe ñu dem yàlla dogal ñoom ñu koy euh, euh, euh, ndax yont yàlla nuux yàlla daf ne ko mu innahum muxraquuna ñii dama leen di labal ci ndox waaye danaa la jox màndarga boo toogee ba gis fuur bi nga xam ne sa soxna ci lay toggee di ci defar mburu nga gis ci ndox balla ci rek na nga xam ne sama mbir mu ngi waaj a ñëw ku ne xam na ne euh, euh, safara fu safara di takk tàkk miinuñu fa ndox benn bés soxnaam di euh, boyal di defar mburu mu jékki-jékki gis ndox balla fa yàlla inspire noox nekk nag sama mbir a ngi ñëw demal nga yab ci gaal gi képp koo xam ne nii gëm na la ci góor ak jigéen nga yab ci itam lépp loo xam ne rab la ci góor ak jigéen bu ko defee nga dugal leen ci gaal gi leneen li des ci àdduna bi yépp dama koy engloutir ci ndox yàlla jox ndigal suuf si di ball ndox asamaan si di taw ndox wa wa qudiya amr programme alkade ba ñëw wa qiila ba'dan li qawmin zalimin ñoom ñëpp ñu alku nuux moomu nag bi mu dugalee njabootam ci e, gaal gi e, dafa woolu taaw mooy Kanaan nekk irkab maana waral ci gaal gi yégal ci gaal gi e, kooku di ko ree nekk papa yow fan nga fi gis fu ndox war a ñëwee ba ñuy dugal dugalloo ci gaal mu ne ko xanaa gisoo ndox mii di bal mu ne ko lii benn source d'eau rek la léegi mu arrêté mu ne ko doom lii mbiru yàlla la du arrêté ti c'est fini di insisté di insister ba ndox mi nag commencé dëkk bi nag di lapsi si gaal gi commencé tëmb ci kaw euh, ndox mi mu ne ko doom irkab ma anaa kaay war <coughs> xale bi bañ opposé mook moom mook moom ba yàlla dogal yàlla ne wax xaala baynahuma al mawju fa kaana min al muraqin xale bi dafa mujje lab euh, noox nag am tristesse bu metti ndax ñaanoon na yàlla pour moom mu mucc ak njabootam mu ne rabbi innahu min ahli yàlla sama doom bii nga rey ak sama soxna ñoom ci sama famille lañ bokk yàlla naka innahu laysa min ahlika bokkul ci sa famille ndax innahu amalun xayru saalix jëf ju baaxul la ci lañuy ñuy xamee ne doom kon jëf la doom bu baaxee yàlla fay ko wuy juróom bu safaanoo itam mën na doon jafe-jafe ci moom euh, noox nag nekk ci gaal ga téere yi wax nañ ne am na ci ay fan ak i bëccëg ba àdduna bi fees ak ndox boobu nag bu kenn foog ne àdduna bi nii mu mel dafa feesoo nag ay nit déedéet nit ña fa nekkoon bariwuñu woon ci Moyen-Orient bi rek la woon ñooñu ndox mi jël leen ba mu des quatre-vingts personnes yi àndoon ak noox ci diggante góor ak jigéen ba ñu demee ba ndox mi commencé ngis fi njëkk a wow moo tudd fële Irak tey di Babil ñi ne Cham la am na fu xari fu ñuy wax xariyatu samanin mooy dëkk bi nga xam ne juróom-ñett fukki nit ñoo fa dëkk yonent yàlla noox nag wàcc fa dalal leen ñoom ñu dund fa la des seen dund ci jàmm ak salaam ba nu ñu fekki jee seen borom yonent yàlla noox moom itam wuy ji boromam ngir mission jeex na gannaaw yonent yàlla noox leer gi toxuwaat jëm ci Seydina Huud surtout yont yàlla noox yi nga xam ne ñooy saam ak xam ak yaafus dañoo dem dal yaman sanca jur fa ay doom ñuy waa aad waa aad dem fa ba yàgg nit lu mu yàgg donte ñi seeni maam ñoo muccoon ci gaal gi durriyata man xamal naa ma an wax waaye ñaari siècle ñetti siècle ñeenti siècle juróomi siècle ñu fàtte nag ni yàlla musaloo woon seeni maam ñoom it commencé jaamoo ci leneen lu dul yàlla ci ay xërëm yàlla yebalaat ku leen recadré mu yont yàlla huud yont yàlla huud nekk ak ñoom e, yàlla tudd na ko benn saar ci alquran ñu koy ree niñ daan reewee yont yàlla noox mu ne leen mais yéen war ngeen fàttaliku seen maam bi yàllay labal seen nooni yonte yàlla noox musal seeni maam loolu yàggul ñooñu di ko ree naan euh, yow Huud dañoo fokk ne dangaa dof jamono yi moo tax yonent bu ne jiiñ nañ ko ndof mook ñoom mook ñoom ba yàgg yonte yàlla Huud ñaan yàlla pour mu musal ko ci nitam yi yàlla na fa arsalna alayhim rihan sarsaran fi ayaamin naxisaatin yàlla yabal ngelaw loo xam ne ni ngelawu mbas la une semaine yoo xam ne dalul ngelaw li di leen ëlbatee ko tël di leen tël di buddi seen garab yi di buddi seen bâtiment yi ba ñoom ñépp ñu daanu ci suuf te ñoo daan wax man ashaddu minna quwwa nga xam ne kon boobu beneen sew sew la bi ñu faatoo muy waa aad yàlla alag leen ca yàlla musal yonte yàlla huut téere ne dafa dem màkka toog fa li des ci dundam mook ña ko gëmoon ba ni ñu wuy jee seen borom yàlla yabalaat gannaaw ñaari siècle ñett samuuda ndax ñii nii nga xam ne ñoo muccoon ak huut dañoo dem même famille bi sanc ji ci benn dëkk seen maam bu ñuy wax samuuda produire fa ay doom ñu dem ba doon dëkk bu mag dëkk boobu dama dem a dem ba ñoom escroquerie sociale lañ daan def mooy commerçant yëpp ci riba la ñuy dunde usure ñenn di naxante ñenn ñi di naxante ci wàllu balance bu ñu nee 10 kilos laa la jaay fekk na 5 kilos la loolu metti yàlla mu yebal benn yonent bu ñuy wax saalix saalix bi mu ñëwee ci waa Samud ne leen an ibudullaha wattaquun wa atiuni ñu koy ree ne ko yaa saalix inna naraaka ñun de dañoo gisoon ne nit ku baax nga ku amoon ci yow yaakaar nga mais ndekete danga nga nar a dof xale bu baax nga yaru woon mais ndekete eh, da nga nar a dof walaw laa rahtuka la rajamnaaka wama kun wama anta alayna bi aziz bu ñu rusul woon say baay ak say ndijaay nga xam ñoom ay notable yu mag lañ danañ la rey reyin bu ñaaw te mooy dinañ la sànni ay xeer ba nga di faal yonte yàlla saalix continuer ci loolu ci mission ba bés ñoom ñu def délégation nekk comme noonu la te forcé nga léegi dañ lay laaj dara bu dee yow nee yàlla la yoon yónni indil ñu benn miracle yonte yàlla saalix ne leen ban miracle bu wax leen ñu boo leen bëgg ñoom comme ay kaw-kaw lañu ay arab lañu li gënoon a ci ñoom mooy gëléem ñu ne ko dañ bëgg nga génneel ñu ci montagne bii ñu tiim ci dëkk bi benn gëléem muy asxaabul xijri gëléem gu mag nag lay doon boo xamee day ànd ak doomam waxa waxa wax décrire gëléem gi niñ ko bëggee yépp yonent yàlla saalix julli ñaari rakk ñaan boroom subhaanahu wa yàlla ne ko à une condition dinaa indi miracle bi waaye ku gëmaatul nag dama lay duma xam nga looloo tax ñaan miracle di risque nitu yàlla bu lay woo wala ab yonent man nga gëm man nga bañ a gëm doo am problème mais boo xësee demander miracle boo bu ñëwee boo gëmul rek ñu fudd sa ndigal mu ne leen boo leen gëmul dañ leen di alak ñu nekk amul problème yonent yàlla saalix ñaan téere yi nee nañu montagne bi dafa jekki-jekki matu comme ni jigéen di matoo dañ ko gis mu mel ni dafa xaw a yokku tuuti lu tolloog li ñuy tuddee biir jiw de dafa ëmb ba yàgg ñu gis ko mu mel ni kuy matu ñu jekki-jekki gis mu ne tàcc xar ngandëm gëléem génne téere yi nee nañu gëléem gi mu ëpp bâtiment gëléem gu rëy a rëy parce que yàlla da doon bañ indil leen gëléem gu tollook seeni bos ñu ne Saalix yow yaa dencoon gëléem gi ci biir xeer bi léegi mu indi gëléem goo xam ne wax dëgg yàlla bii naturel gëléem goo xam ne moo ëpp moo ëpp a ñay bu mag a mag a mag la génne ñu gis doomu gëléem bi rek doom bi mu àndal mu ëpp gëléem yii nii xam nga bu fekkee doom ji nag moo ëpp gëléem yi yaay ji ni muy tollu ñu génne ko ñëpp téye seen gémmiñ waaw lii ah, lii di yéeme ni lii di nar a gëm nag naka lañ nar a gëm waaye ne tey leen tey leen rek bàyyi leen ko ba ndax wóoruñu ndax affaire bi dëggantaan la wala déet Saalix ne amul problème en tout cas yàlla nee na bu laha shirbun walakum shirbu yawmin maalum wala suuxaa bi suuf yàlla nee na gëléem gi dina fi nekk ak yéen ngeen koy xool mu leen di xool mais dex gi ngeen bokk day jël benn fan lundi moom rek mooy naan mardi bi dina génn meew meew bi man danaa ko ratt ñu séddale ko dëkk bi yépp kenn ku ne naan ci say litre te effectivement euh, euh, gëléem gi moom dex gi yépp mën na koo naan léegi mardi nag dëkk bi ñooy dem rooti gi de ko ñooy naanaale ci meewu gëléem bi mercredi gëléem gi ñëwaat ba yàgg ku ñu wax xudar ibnu salif toog rek ak ay moroom wa kaana fil madina tisaatu rahtin yufsidoon fil ardi wala yaslihun ay bandi lañ gang boo xam ne neuf personnes lañ toog na ñun daal dañ ñàkk fayda benn géléem di naan ndoxu dëkku lëmma ñun ñuy ñun ñuy ñun ñun ñuy bokkoo benn bés géléem gi moom rek ak bésam loolu duñ ko nangooti ñu ne ñuy def waa ji ne dama koy rey damay rey géléem gi ñu ne ko sañoo ko mu ne maa koy rey ñu wax wax mu benn sañ la mu bàyyi ba gëléem gi naanin ba doon dellusi mu jël benn jaasi cor tànk yi bi mu ko coree gëléem gi yuuxu mu coraat bi ci des loolu moom la olof tudde siisi mooy euh, sidit gu mag gi nga xam ne moo nekk ci ndëggu tànk ku ko dagg borom day daanu bi mu daggee siisi gëléem yi gëléem gi yuuxu saalix boobu mu ngi këram naka la dégg yuuxu gi rek gëléem gi nekk dafa wax benn mot de la saalix ñëw gis gëléem bi deret ji di di say mu ne lii lan la ñoo moom ñuy dardare gëléem gi ba gëléem gi daanu naka la daanu waa ji ne daanal laa ko kaay leen dara jotuma ku nekk indi paaka ñu ne dañ koy fees ak na mu rëyee ñoo moom ñu yendu ci suuf ba ngoon ba def ko ay naru yàpp doom ja dafa yuuxu rek daw dem ci euh, euh, montagne ba mu juddoo woon montagne ba ubbeekuwaat mu daw dugg ci yaay ji daanu gaa yi fees saalix bi mu ñëwee ba gis leen ñu tiim yàpp bi di fees dafa dellu gaa yi ne ah waxul dara maxallaa dafa tiit dafa ragal moo ñu doon intimider du dara saalix toog rek xam ne jeex na repp nañu c'est fini ñu defar seen yàpp ba fa tabaarakallaahu keroog daanaka réveillon la ndax yàpp bi dëkk bi yëpp lay matale ku nekk ñu yóbbu fa mais téere yi nee nañ même ku naan ci ñeex ma sax am nga problème yonte yàlla saalix waaye leen ba ñu lekk ba pare nag dellu se ne ko yow yaa doon yaa ñu doon intimider rey nañ géléem gi lekk nañ ko te dara jotuñu ñu ngi nii mu ne déet dara jotagu leen léegi talabusu fi diyaarikum salaasata ayaamin yàlla nee na jox na leen euh, ultimatum trois jours jours bu jëkk bi ñoom yu xëy seen kanam yi jaune ku xëy rek ne sa morom waaye lu am sa kanam gi dafa jaune mu nekk ko yow sa kanam gi moom laa naroon laaj dafa jaune ñu yendoo di laajtante loolu muy trois jours deuxième ba ca suba ko ba ñu fanaanee kenn ku ne sa kanam dafa xonxo ku xëy ne waaye lu am sa kanam gi yow yow kii ne la yow xanaa gisoo sa bopp ñu yendoo wax loolu troisième jour ba nag seen kanam yi ñuul kuk ba mel ni karaw waaye lu am sa kanam gi dafa ñuul yow loo diwoo ñu ne ah ñun ñun est-ce que waruñoo ñaaw njort parce que waa ji ñetti fan la ñu joxoon te tey la ñetteelu fan bi ah waaye waa ji waxul dëgg wax na dëgg ñu nekk fay coow ba ñetteelu fan bi daal ba mu jeexee ba ñu tëdd nelaw kenn yeewul ba nag ba tey ba bésu tey nag yàlla ne na fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin yàlla moo yebal jibril rek mu yuuxu benn yuuxu la yuuxu waa mu jéex jibril moom benn yuuxam maanaam xol yi lay butti xol yi xam nga léeg-léeg doo di nga dégg nit naan sama dënn dafa rëcc wala sama xol bi tuuti mu génn jibril bu tiimee dëkk wala iyaasu billah même bu tiimoon senegal yuuxu waa rek ku ko dégg sa sa fidd euh, da ngay moo raw bombu atomique buñ sànni xam ne jibril bari doole te njaboot la ci borom bi subhanahu wa taala fa asbaxu fi diyaarim jaasimin kenn ku nekk waw koŋ fa nga nekk yàlla musal saalix ak ay nitam ñu dem ñoom it jóge xijra gañ nekkoon ñëwaat màkka tuuti yàlla dogal ñu faatu euh, yàlla nag toogaat diir Irak nag commencé di peupler mu soog a indi nag ki nga xam ne moom lañu tuddee tudde cheikhul anbiya nga xam ne mooy patron wu yonent yépp muy seyduna ibrahim aleyhi salaatu wassalaam moom nag nga xam ne moom mooy miracle àdduna bi yépp mooy le père des croyants baayam dafa am doom quelque temps mu faatu bi mu faatoo bàyyi fi yaayam yaayam nekk ak moom ba mu màgg ba mën a wax ñu jox ko nag bàyyi tëxam muy azara ñun loolu la ñu seex seyd Ahmed Tiyaani Chérif jàngal azara bàyyi tëxam la ndax bañ ko ko laajee ndax azara moo ko jur mu ne juru ko rakku baayam la parce que bu doon baayam bi mu ne wa id qaala ibrahima li abihi azara atattaxisul asnaama min dunillah euh, mu ne bu fekkoon ibrahima moo ko jur moo azara moo ko jur du jar yàlla naan way qaala ibrahima ba ibrahima waxee li abi baayam ba pare ne azara encore ndax wax na ak sam papa loo jaratul nga indi turam waaye sam papa diw bu ko nit waxee rek waxtul baay bi ko jur loolu moo tudd al am mooy baay tëx euh, azara moomu ko yar nag nga ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne maa wulittu fii sifaaxin walakin wulidtu fi nikaaxil islaam min ladun aadama ilaa abi yonent bi nee na sama leer masta jaar ci ku weddi yàlla masta jaar ci kuy jaamu xërëm depuis maam aadama ba ci sama baay bi ma jur ci euh, ci ndiggam muy abdullah te ku ne xam ne ibrahima ci baayam bi la te baayu ibrahima maamu yonent bi la kon baayu ibrahima dundul dundul azara mi rakki baayam moo dund kooku nag moo doon defar ay xërëm benn bés Ibrahim wax yaayam ne ko yaay ku ma moom mu ne ko man euh, man maa la moom mu ne ko yow nag ku la moom mu ne sa pap muy Azar bàyyi taxam boobu mu nekk moom ku ko moom mu ne buur bi muy Namruud mu ne ko Namruud ku ko moom mu mbéj ka ne noppil kooku mooy yàlla ju mag ji kenn moomu ala kulli xaalin Ibrahima nag am esprit de révolte ci loolu ne non yàlla kay E warul doon namruus nekk ci baxsu anil xaqiqa mooy kat d'une vérité absolue nitu yàlla mu ne dina ci toll di wër rek di wër ba ba muy yegg ci yàlla falam mu gis biddiw yi mu ne leen kii daal moo gën a kawe namruus kii mooy sama yàlla di demee ba bëccëg jot gisatu leen moom biñ demee ba mu gën a guddi mu gis jant bi weer wi gën a génne ëpp doole ñële biddiw yi mu ne noo haada akbar falammaa euh, euh, haadaa rabbi euh, weer wi moo gën a màgg kon mooy sama borom ab diir bi fajar jotee ba sept heures jot jant bi génne falammaa ra'a shamsa baazigatan qaala haadaa rabbi haadaa akbar jant bi daal mooy sama borom fekk da doon jàngale ak tër taraqi boo yéeg ci yàlla da ngay def système d'évolution ba ba ngay yéeg bi mu gisee jant da bëggoon jàngal ne yàlla ji moo war a doon ki ëpp le plus puissant moo tax mu dale ci astre après dem ci lune bi dem ci jant bi léegi bi ñu demee ba ci 18 ci ngoon jant bi duggaat falammaa afalat qaala innii bari'un mimmaa ta'buduuna min duunillaah ba mu demee ba jant bi dugg nag mu ne man daal génn naa ci yàlla juy feeñ ak génne man ki ma ki ma ki ki ma gëm daal mooy ki nga xam ne moo fi nekk nekkal fi li fi nekk alladi huwa yahdini wa huwa yut'imuni wa yasqini wa ida maridtu fa huwa yashfini wa huwa alladi atmau an yaxfira li xatiati yowma ddin ñu opposé ko nag ne ko mënoo doon xale bu ndaw ba pare di nangam nangam taw li bari ba li ci xew-xew ci ñu am seen feet dem doon lijjanti seen feet boobu Ibrahima doxe leen gannaaw jël sémmiñ dem ci bu doon luñ mënoon a tudde tey dañ naan ci jàkk ja dem ñu ngi fa teg seen xërëm yi mu gor yëpp yu ndaw yëpp jël sémmiñ bi nag wékk ko bu mag bi euh, ba nit ñi dellusee ci seen rit yu ñu doon def rituel yi dellusi fekk yàlla yëpp sëngéem ñu ne subhaanallah man faala hada bi alihatina ku def lii suñu yàlla yi benn meer bu demul woon ne sami'na fatan yuzkuruhum yuqaalu lahu ibrahim déggoon nañ xale bu leen di ngàñña ibrahima la tudd sa ñu ne oo leen ko mu ñëw ñu woolu xale bi mu ñëw treize ans téere yi nee nañ moom la am ñu ne déedéet dix-sept ans ñu ne ka anta faalta hada bi alihatina yaa ibrahim ibrahima yaa def lii suñu yàlla yi mu ne déedéet bal faalahu kabiruhum hada yéen yéen a seetluwul rek mais gis ngeen yàlla ju mag ji moo yónni yu ndaw yi ñu bañ yónnante mu mer gor leen nii gisoo ni mu wékkoo sémmiñ bi euh, mag ñii xam ne xale bu leen di fowe la euh, mu ne yéen waru leen ma ko woon laaj sax fasaluhu in kaanoo yantiqut laaj leen ko moom ndax moom comme moo amee sémmiñ bi te yéen leer na leen sémmiñ bii lañ gore yàlla yi kay moom ngeen ko waroon laaj ñoom ñëpp ñu farajaxu ilaa anfusihim ñu waxtaan seen biir ngunum ngunum ngi ba yàgg ne Ibrahima yow danga ñu yëpp ndax laqad alimta ma haula yantiqun xam nga ne ñii duñu wax ibrahima xaxataay daanu ci suuf ne ah uffin lakum wali bu dul mag ñu tol ni yéen di jaamu yàlla judul wax man sax ma maa tane yàlla yi parce que man maa ngi wax yéen yéen a ngi wax ma leen di tontu kon maa ëpp njariñ ci yéen ñi ngeen di jaamu ñu yeddante seen biir ne xale bi wax na dëgg parce que nag mag ñu tol ni ñun di jaamu loo xam ne ni wax dëgg yàlla bu ñu waxee moom du ñu tontu ba yàgg ñu ne daf ñu yàpp xam nga bu kenn waxee rek mboolem da ciy topp waaw daf ñu yàpp ñëpp yu xóondoo ñu ne nuñ koy def ñu ne xarriquuhu nañ ko lakk parce que kii buñ ko tegul benn pénalité bu metti yeneen xale yi dañuy defaat ni mu def nañ ko lakk ñu dajale matt gas benn fossé bu mag euh, taal ko ba mu jàpp ñu am yéene dugal ci Ibrahim comme ni ko téere yi nettalee yoneen euh, euh, malawul ala yëpp nag yërëm ko ci waxin malaaka yëpp naan yàlla Ibrahima mi nga xam ne xale la mais moom moo la représenté ci suuf di nga seetaan nii ñu lakk ko yàlla ne bàyyi leen maag moom rek malaaka yëpp ñëw ñaan intervention Ibrahima bañ ne alima bi xaali alladi sayarani bi makaani alima bi xaali ki ma teg lii xam na sama mbir ñëpp yërëm ko ñu dem ba war a sànni ci tabaarakallahu Euh, Ibrahima ci njàq bi maanaam ci safara bi Seydina Jibril ñëw ne du ko seetaan ndax may xolam mayu ko lool waaye waa dëkk bi problème bi ñu am mooy safara bi tàng na tàng goo xam ne distance boo ko jegee rek yow yaay lakk yow bala nga faa yóbbu ku mu lakk yow lay jëkk lakk ñu toog di xalaat noonu ba yàgg seytaane feeñu leen jëmm nit seetaane mi yàqaloon maamam aadama génnoon maamam awa moo topp nag ay sëtam ba tey xam naa Iblis am na am na koofur trop am na koofur te sawar na ndax li muy liggéey moo leen feeñu ne leen kii boo leen ko bëggee yóbbu safara si yeneen njëkk a lakk xam ngeen lu xew defar leen njaq njaq lu mel ni mbaal la rek njoowaan ñu defar ko teg ci war ko wëndeel ba mu pare rek ñu sànni ko biñ ko defaree nag ba pare di ci teg Ibrahima ci la Seydina Jibril ñëw jël teg benn laafam ci njaq boobu mënatula yëngu ñu def def def mënula yëngu iblis feeñuwaat leen ne dafa am kilifa gu ci taxaw boo leen gisul waaye man gis naa ko indil leen ma góor ak jigéen bu majeur ngeen rafleel leen ñuy kottante ñu indi góor ak jigéen solol leen lu gàtt ñuy ñu kottante jibril du fekke loolu jotaay bu xaram naka la daw rek kii bi opérationnel ñu yëngal ko sànni ibrahim li muy gaaw gaaw nag yàlla bi mu xamee ne pexe yëpp jeex na mu ne qul daa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim yow safara bi fexeel ba nanga sedd ci ibrahima te bul ko lakk ibrahima tàbbi ci safara bi nee na moom ibrahima nee na climat bi gën a neex ci dundam mu ngi ko dunde ci safara si xam nga jaadootul de yàlla yabal ay matelas yu baax yuñ ko jëlale àjjana mu jiitu ibrahima mu tëdd fa ñoom ñu ngi ko séen ci biir safara bi muy lekk fur wi ñu xamul fu mu jóge ndekete yàlla moo transféré safara bi mu doon àjjana ci Ibrahim mu dund fa la sopp yàlla ñu am kersana gu rëy génn ko Ibrahima moo fa togg ab diir doxal boppam génnaat safara si ba ñoom ñu xam ne safara mënalul Ibrahima dara loolu nag mu mayat ko beneen bës ci dëkk bi ba mu jéggi nag mu sonal buur bi ndax ku ne xam na ne buur opinion dafa koy xaw a sonal ñëpp Ibrahima Ibrahima ba nga xam ne presse bi waxatuñu kenn ku dul Ibrahima buur bi mer ne nañ ma ko indil ma dialogue ak moom bi mu ñëwee mu ne ko yow dégg naa presse bi ni ñu la amee ak coow li ni mu baree dama bëgg nga wax ma kan mooy sa borom mu ne sama borom kay li mu def xam nañ ko mu bind asamaan suuf Euh, moo bi mooy rey mooy dekkal mu reye ne ah loolu yomb na rey ak dekkal mu ne waaw indil leen ma ñaari prisonnier ñu indil ko ñaari prisonnier mu rey kenn ki bàyyi ki ci des ne ko yow baal naa la ne Ibrahima xool maa rey ki maa dekkal ki mu xam ne bu ñu bu ñu demee côté boobu dafay gën a yomb mu ne ko ci gàttal laa sama borom moo bind asamaan ak suuf xam nga keneen bi naatu ko xam nga mën na ne maa bind asamaan ak suuf xam mën na ko wax te boobaa kenn du ci mën a wax dara philosophiquement nag mu ne ko li mu bindee asamaan ak suuf nag dafay jël jant bi di ko xëyale fii ci sow bi euh, xam nga di ko xëyale ci euh, est di ko yóbbu ouest chaque jour nag mu ngi am penku lay jóge dem sow loolu bu noppi woon waa ji danaa kaan bàyyil bu suba dinaa ko def mu nekk léegi dama bëgg suba nga xëy nga nga ma ko yow maanaam nga xëyale ko sow mu dem mu dem kële yàlla na la waaj dafa jommi yàlla noonu la ko waxee fa buhita lësi dafa jommi lësi ki nga xam kafara moo weddi woon dafa jommi parce que lu ko jommal nekk parce que xale bii di wax ak moom moroomu baayam la moom mais wax ju euh, ju ju pertinente bu àgg fii ak âge bi ñu naan diw li muy wax du âge am loolu dal Ibrahima ci moom ala kulli xaalin mu nekk ak moom ci xaal boobu ba am kersa mu ne nag Ibrahima neexul ba neexul mais dëkk bi presse bi amee nañ la fii nag doo fi mën a dëkkati da ngay def mu def ko exile politique ñu génne Ibrahima te bu ndaw la fekk mu ngi doog a marié ñu may ko doomu doomu baayam bu ñuy wax Saarata ñu joxoon ko doomu freeram bu ñuy wax Luut trois personnes yooyu ñaar ñu góor ak benn bu jigéen ñoo génnendoo Irak googu topp nag seen périple yu metti yooyu bi mu génnee Irak après dem Harran jóge fa jéggi Furaat bi ci euh, Moyen-Orient bi entre Irak ak actuel Arabie Saoudite bi mu ko jéggee looloo tax ñu leen di tuddee al abraniyun mooy ñi jéggi furaat bi euh, après ñu dem Cham mu installé fa bi mu fa installé am fa sonorité ñëpp dégg ko ndax moom miracle am daf ko jiitu ci jamono yooyu ci àdduna bi bu doon tey jii dañ naan presse bi fésal nañ ko ba ne am na kuñ doon lakk fële ci Irak jotul lakk ba moom fu mu dem audience am ak turam moo ko fay jiitu mbooloo ma topp ko mu xaw a sonal dëkk gouverneuru dëkk ba kooku daal ne ko daal boo ma noona romb nga dem mu jaar foofu dem euh, def difatul garbiya ba dugga Palestine fekk muy àllu kerte ndeng mu nekk fa après jubal Égypte nga gis ne périple bu baree baree bari la ci ku xool carte mondial bi mu ñëwee nag Égypte bay dugg ci la ko garde garde yi jàpp jàpp ko mook loot ak soxnaam soosu yóbbu ko ci buur bi buur bi bi mu xoolee soxnaam rafet lool mu ne alhamdulilah rabbil alamin mosu leen ma indil ku mel nii Ibrahima nag ne soxnaam buñ la laajee lu ma doon ci yow nee leen sama frère nga frère laa ci yow parce que frère innamal mu'minuna ixwatun jullit yëpp ay bokk lañu waaye fekk na ñoom ñaar doomu baay lañ seen ñaari baay bokk ndey ak baay mais en même temps jëkkëram la mais dafay bañ bu ne jëkkëram la dañ koy rey mu dem wax loolu buur bi ne ko comme noonu la nañ tëj ñooñu muy Ibrahima ak Luut mu ne nag ndaw si nañ ko ko defaral ba mu mën a euh, fanaan ak moom ci gàttal saaratu ñaan yàlla ci barke yonte yàlla Ibrahima ne yàlla bu kàccoor bi agsi ci moom waa bi mu solee semis de nuit ba jublu ci moom dafa tàllal loxoom rek loxo bi sem sem mooy dafa paralysé mënatul dara mu yuuxu ba garde corps yi ñëw jàppoo ko ne yéen indiloo leen ma nit seetaane ngeen ma indil génne leen ko fii ñu génn ko fi essayé na ko ñaari yoon ba ñett ñeenteel bi nag ci la ko oo ne ko mais yow lan nga mu ne ko pourtant nit laa duma seytaane mais ana zawjatu nabiyin euh, ibrahim man euh, jabaru yonent laa mu ne mooy kiñ la jàppaloo mu ne waaw mu ne nañ ko woolu mu ñëw bi mu ñëwee nag mu teral ibrahima teral luut teral saarata ba pare que may ko jàmm bu rafet bu ñuy wax hajar léegi nag nekk bu la neexee toogal misra bu la neexee itam nga dem fu la neex mu nekk fa nag ab diir ci la delluwaat bi mu ñëwee nag ba Palestine ci la sañca foofu ab dëkk moom lañuy ñuy tudde madinatul xalil ba tey jii mu ngi Palestine ku fa dem daa fa mën a dem ziyaare ji madinatul xalil nag la sanc nekk fa moom Ibrahim ab diir ba yàgg nag euh, saarata ne góor gi comme yàgg nañoo sëy te ay at ñu ngi tukki di dem ko ñëw lu ëpp 40 ñu ngi ci àll bi di jaabante te gis naa ne yaa ngi âgé te fekk naa la bés ngay ñaan naan rabbi habli min ladunka waliyan yàlla yàlla nga ma may doom te man am naa 90 ans yow am nga 120 ans kon doom du ñu yombati léegi kii nag sama jaam la muy haajara dama la ko bëgg a may xëy na yàlla may la ci doom Ibrahima bégge ko ñu sëy dañoo am neuf mois rek xale bi commencé euh, xale bi ëmb accouché li ci yéeme mooy mu am doom bu góor mais ndekete leeru yonte yàlla Muhammad boobu nga xam ne résidé na ci Ibrahima lu ëpp siècle kooku la doon xaar ba mu juddoo niroog moom lool rafet lool weex tal comme Ibrahima amul kudul yàlla mu ne isma xale bi na nga déglu il yàlla il mooy turu yàlla ci abrani yi fekk Ibrahima comme dafa ñaanoon yàlla doom benn bés dafa nekk ci xaal loolu xaal moo koy def biñ ko dugalee ci safara bi fayul maanaam lakku ko ñu génn ko dëkkam muy dem di am ay teranga dana yàlla billaahi bala nga doon xam ni ma la gëmee même bu ma amoon doom dinaa ko rey ngir yow xanaa loolu àll ndekete yàlla dégg na ko ne ah danaa la may doom ji nga xam mu may ko nag doom ji mu tudde ko Ismaïl tudde ko déglul yàlla doom ji kon séddewaat na ko yàlla te wax dëgg yàlla loolu la waxoon léegi nag jabar ji mu am indi ay jafe-jafe ba yàlla jox ko ndigal pour mu gàddaay gàddaay googu nag moo ñu dugal ci histoire boobu moo di yàlla moo ngi bëgg ut benn milieu bu propice nag ki nga xam ne moo war a doon le sauveteur de l'humanité pour tous les temps muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag gis nga nit ñi ci moyen norian bi lañ nekkoon ci noor bi léegi nag yàlla war na leen indi ci presqu'île arabe mais yàlla buy jël leeram du fekk ci digg dëkk bi mu def ko fa mais da lay yóbbu ci àllub kerte ndeng bu ko defee nga sànc fa nga xam ne kenn du la fa fekk ci la yàllay def nag leer foofu ba ñëpp fekk si la fa mu yebal Ibrahima ne ko àndal ak Hajar ak doomam ngeen dem Bakka Bakka mooy place boo xam ne nii dara dara nekku fa xam man ragal naa ne fa la ko olof jëlee naan pàkka am naa fële benn pàkk pàkk mooy bakk boobu ca dem wàcc fa mais bakk bi muy tudde Hijaz kenn dëkku fa nag boobu monde arabe presqu'île arabe existé wul li tax mooy c'est inhabitable parce que kenn mënu fa dëkk dafa doon ay montagnes yu kawe ak ay xur yu suufe ak tàngaay wu metti ak ñàkk ndox kon depuis époque aadama ba jamono yooyu kenn dëkku fa fii nga xam ne nag mooy sud presqu'île arabe muy yaman diggante adan ak sanaa foofu moo amoon ay nit ndax jege gi mu jege mer rouge jege Égypte jege Soudan mais ci kaw xijaas bi ci presqu'île arabe bi amul dëkk kenn new yàlla nag foofu la choisir def ko muy dëkk bu tàng boo xam ne ni xikmaam la parce que xam na ne à quelques siècles incha allah agglomération humaine dana fa am te ñu ngi doog a découvrir ne agglomération humaine foofu bu tàngul aw bi ay may jàngoro yi daf fay bari mais bu ko yàlla defee fu tàng agglomération bi lu mu mën a nekk rayon solaire yi daf koy lakk dafay lakk euh, maanaam virus yi nga xam ne ñooy naaw ci jaww ji kon ndekete yàlla inna rabbi ala sirati yàlla xakim la mu tànnaloo Ibrahim foofu mu nekk fa mu mbaar fa def fa soxnaam Haajara mi nga xam ne mooy ummu Ismaayil mu nekk ak moom nag ab diir benn bés mu génn dem jël saagam rek di dem tàggoowul waxul dara di dem di dem ba yàgg Haajara nekk ilaa ayna yaa Ibrahim Ibrahima foo jëm faalew ko Ibrahima foo jëm faalew ko ndax borom yërmande ba yàgg xaajara fàttaliku ne kii yonent la mu ne ko allahu amaraka bi haza ndax yàlla moo la sant li ngay def nii dem di ma bàyyi fii ibrahima yëngal bopp bi tontuwul gestuwul mu ne ko idan xaajara mooy wax laa yu dayiu naa yàlla de bu dee moo la ko digal duñu sànk demal ibrahima dem bàyyi leen fa muy ummu ismaila di hajar ak mbaaram ak doomam bu ndaw mu toog fa nag ba yóbbal bi jeex lu ñuy lekk wala lu ñuy naan jeex ci foofu nga xam ne mbooy mi kenn xamul mu toll montagne a nga ko wër ci côté bu ne mu ne ci diggu xur bi euh, mu mel ni rekk ku jëloon benn benn morso tàllal ko euh, yëkki ñeenti koñ yi bàyyi suuf suuf gi suuf gi ni muy suufee fala xaajara ne ñeenti koñ yi mooy montagne yi ko tiim ci jigéen ak doomam loolu triste na mu nekk fa ba yàgg xale bi di jooy ngir xiif ndax moom moo ko war a moom moo war a lekk pour mu am soow mu ko nàmpale la mu waroon a lekk jeex na xale bi di jooy muy wër ndox muy jooy mu jegi Hajara tiit daw yéeg ci montagne benn bi nag Safa la tudd wër wër gisul pour taxaw bu amee li ñuy tuddee vue panoramatique maanaam gis man a gis fu sori mu xool-xool gisul dara mu wàccaat ci montagne boobu yéegaat ci beneen montagne bële ci côté noor bi euh, xool xool xool foofu gisu fa dara mu wàccaat ci mbaar mi xoolaat doomam xale bi gën a yuuxu ngir xiif ak mar mu tiitaat yéegaat ci beneen montagne bi safa xoolaat xool donte xooloon na foofu sax waaye fàtte na ko gisul dara gisul nit gisul ndox mu wàccaat ci suuf xoolaat doomam traversé demaat ci noor bi dem ci marwatu defaat noonu wàccaat ñëwaat ci doomam xool gën a tiit ndax xale bee ngi gën a jooy mu yéegaat safa di jaabante noonu jaabante yii nii diggante yéeg safa ak wàcc xool doomam ak dem marwa def na ko sept fois yàlla na ci sama xikma balaa àdduna jeex loolu mooy doon rituel bi nga xam ne kuy jullit ca ma war a nangu sa jullit mu mat di nga ma ndokkaleel soxna si ci va vien yi mu defoon euh, loolu moo tudd sax yu bay na safa wal marwati ki dem nag tey màkk ne day def safa ak marwa day foog ne moom ni mu ko dawee nii noonu lag soxna si dawee déedéet soxna ci ay montagne yi la doon yéeg montagne ji wàcc di yéegaat ñoom ñaari montagne yu yu janoo woon lañu moom soxna si mu nekkoon ci biir xur wi mais ginnaaw gi lañoo wàññi nag montagne yi di ko lelli di ko lelli ba mu xaw a euh, euh, euh, garavaay bi ñu suule ko xur boobu xanaa laa automatiquement dana tolloo léegi loolu lañ def nag autoroute nii nga ci daw mu mel ni autoroute la ngir ni mu tolloo fekk xur wi lañu sëkk sëkk ba ba pare wàññi montagne yi ba mu xaw a tolloo kon nii mu nii nga koy dawee mu yomba ci yow à peine 500 rek lay toll melul woon noonu ci soxna si moom moom da daan grimper pour yéeg ba pare defaat descente grimper pour yéeg fële defaat descente kon moom moo ñu gënoon a sonn radiyallahu anha wa an saa'iri ummahatil muminin bi mu defee loolu jibril nag yàlla yebal ko ne ko demal nga këdd foofu ndox dana fa génne bi soxna si demee nag marwatu ci yoonam bu mujj bi nag la dellusewaat fekk fa ndox muy ball ci tànki ismaaila mu doon liir mu sant boromam subhanahu wa léegi jëfandikoo ndox moomu moo tax ndox mi yàlla def ko denrée alimentaire complet maanaam fihi shifaa'u euh, suqmin wa taamu wa taamu taamin yonent bi sallallahu alayhi nee na day faj jàngoro te lekk la maanaam alimentation ndox moo xam ne lekk la euh, ñun léegi mën nañ ko gëm ndax perfusion xam nga lekk la naan la zam-zam ndeke noonu la mel haajara nag ca la naan ba màndi euh, suur ci itam léegi nag am meew bu mu nàmpalee doom doom dal léegi nag bu maree rek jëfandikoo ndox mi yàlla ci xikmaam ndekete waa yaman nga xam ne ñoom rek ci presqu'île arabe bi ñoo dëkkoon ci wa côté yooyu yabal na ay gëléem ñoo xam ne ni ay sàmmkat lañ ñu jël seen gëléem jóge sud bi doon dem côté noor bi pour di sàmm ji seen gëléem ndax foofu amul ñax amul dara waaye yàlla ci xikmaam la defe lool ñooñu nag ñooy dem ba di dox ba yàgg seen xaadim bi ne ne sang bi gis naa picc moo xam ne nii fu ma ko masaan a gis piccu dex la tudd te comme ñun ndox la ñuy wuti nar a dem ba Cham picc yi ñu gis de dafa mel ni fa ñu nekk ndox la sànga bi nekk yow daal yaa mën a wax lu dul dëgg àll bi nga xam ne dafa tàng ngir defi montagne yi kese fii fan la fi ndox mën a amee te ñun depuis suñuy maam ñu ngi romb fii mu nekk ah man de wax xaw ma loolu waaye daal li ma xam mooy picc yi ma gis duñ nekk fu fu ndox amul sang bi nekk demal xooli bi mu demee dem xooli ji xool effectivement gis picc yi tiim benn dex gu ndaw di ci naan mu daw wax ko sang bi sangam mooy amru bnu madad al jurhumi euh, amru mu madad boobu bi ñëwee ñu wax ko ko mu tiit daw ñëw fekk soxna su toog doomam ak ndox mu ne ko anti minal jinni aw minal insi ndax yow jinne nga wala nit nga parce que àll bu toll nii moo yaay laaj ko ko gisu fi lu xale bu jigéen te te ku ndaw la ak doomam déedéet kii du nit mu ne ko wallahi nit euh, nit laa mu ne ko mais lu la fii mu ne ko sama jëkkër mooy yonent bi ngeen di dégg Ibrahima Khalil moo ma andi fii euh, ci ndigalu boroomam mu ne ko yow kay lii rek la mën a yow topp sa ndigalu jëkkër moo la defal lii mu nettali ko xisaam ba àggal mu ne ko ñun nag lenn rek lañ doon wër mooy ndox te naroon nañ dem ba Syrie comme gis nañ ko fii nag jege na suñuy kër yow dafa mel ni man boo ñu nangulee dalañ sañante ak yow pacte mooy campé fii suñuy xayma toog dundal euh, maanaam wéttali ci dëkk yow itam nga may ñu ndigal ñuy naan ci euh, ndox mi di ci wëgg suñuy gëléem soxna si ne leen condition mooy ndox mi moom ak lu mu metti metti maa koy moom ndox nag bu ñu foog ne ndox nii mu yombee nii jamono yooyu noonu la yombe woon liquide précieuse lañ ko tudde moo gënoon a jafe ci jamono ndax jamono yooyu tabaarakallahu mooy yi am ci xëcc ndox ci suuf si mu génne jamono yooyu amul woon ñu nekk loolu koy werante amu ci parce que yow comme yow lañ fekk ak ndox mi yow yaa ko moom waaye ala kulli xaalin ñun dinañ ci lekk euh, maanaam dinañ ci naan di ci wëgg suñuy géléem te même que bu ñu reyee géléem dinañ la may ci euh, yàpp bi euh, sa doom bii itam comme góor la bés bu màggee dinañ ko may suñu doom bu jigéen noonu lañ dëkkee nag xaajara yàlla wallu na ko parce que léegi am na am na wétal am na lu mu dundee te Ibrahima xamoon na ne yàlla du sànk njabootam Ibrahima nag moo toog ba dem jëmmi jamono dellu fa fekk doomam bi commencé màgg bay mën a dox mu ñëw nuyonteeg soxnaam ne ko nag sama borom moo ma diggal naa ko tabaxal fii néeg mooy ci xur wi ci boppam euh, mu tracé néeg bi oolu Ismaila doomam boobu pour mu jàppale ko mu tabax ko ba mu àgg mu nekk nag rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ibrahima nag ci lay soog a wax ne rabbana wabaas fihim rasulan yàlla yàlla na nga yónni ci dëkk bi lu yàgg-yàgg ab yonent boo xam ne yatlu alayhim ayat yi dina jàng say kéemaan ak sa eh, sa sak waaraate way dina leen tarbiya di leen sellal wa yuallimuhum kitaab wal xikma moo tax yonent bi quarante siècles après ci la daan wax ana daawatu abi ibrahim kon maam ibrahima moo ñaan yàlla pour yonent bi juddoo ci xur boobu Ibrahima demaat diir nag tëdd yàlla ne ko nag euh, danaa la mayaat beneen doom boo xam ne Ismaayila euh, euh, Isxaaqa lay tudd pour ndokkeele ko soxna si Jibril bi mu ñëwee wax ko loolu ne ko ñaar moo ñu fi indi sa doomu freer bi nga xam ne luut la tudd te yàlla yabaloon ko ci sadduum mu demoon fa doon woo nit ñi ñoom innahum kaanu na alfaaxisha dañ dañuy def ñaaw teef goo xam ne maa sabaqahum mbi ahadun min al alamin kenn musu koo def ci humanité te mooy dañuy def ngóor jigéen dëkk boobu nag yàlla nee na sonal nañ euh, sonal nañ seen bopp sonal nañu luut ba luut ñaan na pour yàlla anéantir dëkk bi man nag may jibril ak mikail ñoo ñëw pour doon la yëgal yow ibrahima ne dañoo bëgg a dem ci dëkk boobu pour détruire ko Ibrahima tiit ne leen mais inna fiha luutan mais luut mu nga fa nan ngeen mën a alagee dëkk boo xam ne luuta nga fa xaalu ñu ne que nahnu a'lamu bi man fiha ñoo la gën a xam ña fa ne ñun ñu ngi leen gis directement mais la lanu najjiyannahu wa ahlahu illa mraatahu kaanat min alxaabirin dinañ ko musal moom luut ak ay doomam luut nag doomu jigéen rek laa moom moom bokk nañ ci yeneen yi nga xam ne amul góor moo tax mu naan haulaai banaati hunna adharu lakum fattaqullaha wa atiuni euh, dinañ ko musal ak ay doom yu jigéen ak ñenn ñi ko gëm waaye soxnaam du ci man bokk parce que complice la ci waa dëkk ba beneen bi beneen mission bi yàlla moo ñu yónni ne sa soxna sii di saarata yàlla nee na dina ko may doom euh, ibrahima bi mu ko waxee saarata fa daxikat dafa ree parce que maire bi am na plus de quatre-vingt-dix ans xam nga mag moo xam mu ngi doxee yat quatre-vingt-dix ans ngankaan yàlla nee na di tawlu maire bi dafa mujjee fa daxikat ree yàlla ne waaye wa basharnaha bi isxaq yàlla bégal ko doom bu ñuy wax isxaq wa min waraai isxaq gannaaw isxaq itam dina amaat yaquba ku ñuy wax yaqub ñaari bish bishaara lañ ko defal mooy yow di nga am doom te di nga dund ba sa doom am doom ci sa kanam ci màgget nga xam ne yàlla lu ne def na ko ñu jekki-jekki soxna si ëmb effectivement am doom bu góor mu juddu muy isxaq ñu tudde ko borom bi subhaanahu wa taala nag yabalaat nag e, feeñuwaat nag ibrahima ne ko yaa waxoon na nag bu ma la mayee doom bu góor di ko rey doom yaa ngi nii boobu laata isxaq di juddu ibrahim ismaila moo fi nekkoon mu dellu nag makk ba mu delloo bakka boobu noonu nga xam moo tuddoon makka gannaaw bi mu tabaxee nag ba xale bi dëgër mu ne ko nag inni ara fil manaami anni asbaxu ko dama lay rey xam nga xale bi bu doon zahir bu digg yàlla baayam xaw na ko ameel axa xale boo xam ba ngay liir lañ la yóbbu ca àll ba nga dama dem ba màgg nga ñëw ñu liggéey loo laa liggéey loo ab tabax ba ngay bëgg dee nga ñëwati troisième fois bi ne pa góor góor gi nee na daf lay rey lii neex na mu ne ko yaa abati faal ma tuumar nga xam ne kii wax kon yonent la du n'importe qui parce que leeru yonent yàlla Muhammad ci kooku la nekk yow doo gën te defal lañ la wax sa tajiduni sa tajiduni insha allahu min as-sabirin danaa muñ te xam ne yàlla du la digal lu dul jàmm te am na ci expérience parce que ba mu nekkee liir lañ ko fa bàyyi moo ki yaayam te yàlla sàmm na leen ah ba mu demee ba dogu ci takk xale bi tëral pour rendi yàlla ne fa ma aslama ba ñu ommatoo ñoom ñaar ndax natt bi ci ñaar la ibrahima ak doomam wa tallahu lil jamil ay saraahu ba mu ko tëralee nag ci wetam ba jël paaka bi bëgg a rendi yàlla ne ko nag wax dëgg yàlla wàcc nga wa naadaynaahu an yaa ibrahim dëgg-dëgg ibrahim qad saddaqta ru'ya dëggal nga la nga waxoon ci nisr bi après remplacer ko xar moom la mujj rendi ñu santandoo yàlla fa tabarakallahu téere yi nag am na ñu ne loolu moo jiitu tabax bi am na ñu ne déedéet tabax bi lañ def ba pare loolu am ala kulli xaalin Ismaayila nag ci la am soxna Ibrahima delluwaat jëmmi jamono Isxaqa bi mu juddoo ñu xamante ba mission Ibrahima jeex mu wuy ji boromam subhaanahu wa bàyyi leeru yonent yàlla Muhammad nag ak maamam bu tedd bii nga xam ne moom mooy baayu arab yëpp nag nga xam ne mooy sangu àdduna muy sayiduna ismaila mi nga xam ne incha allah ci moom la ñu jëm ak nan nag lay taxawoo environnement bi nga xam ne leer gi jóge woon ca xaybu foofu la koy taxawale tey ca lay taxawale benn fondation boo xam ne ba addunay tukki nag leer googu du fayati muy suñu maam ismaila mi nga xam ne mooy abul arab yal na yàlla yokk leeru yont yàlla mu ibrahim ak yont yàlla isxaq ak yont yàlla ismaila mii nga xam ne ci lañu jëm bi maxdi fadlihi wa juudi ci barke leeru yonte yàlla muhammad mi seen doom di seen bàyyi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.